minutes minutes jot la ñibbi waay moo gën oh. bon ba léegi ah gars yi ñu ngi xeex comme ni ma ko waxee woon euh, mbir mi doy na waar yéeme na. doy na waar lool lool lool lool lool lool xeex yi commencé na ñu ngi dóorante ba dem nañ ci biti vraiment lu ñaaw la parce que leader yëpp ngi nii ànd bokk ndey bokk baay mais militants yi ñooy rente seen biir li mooy politique leader yi ñoom ñu ngi ni Diouf Sarr a ngi nii Amadou Ba a ngi nii kenn xeexul kenn xulawul mais militants yi ñoom ñu ngi reyante di dóorante di jamante comme tout le temps rek ñoom ñooy ñoom ñooy golo yi ñoom ñooy buubu golo yi li ma dul defaral kenn man directeur eh, hey eh, ministre tax ma xeexal la directeur du tax ma xeexal la waaw doomu wala kaana bi ñu ngi reyante ñu ngi reyante ñu ngi jobante ñu ngi doorante ministre yeegi nii ñoom di bëggante seen waaw bu ngeen yeewul doot leen yeewu ku si dee yaa perte ñaaw na lool ñaaw na lool ministre Amadou Ba mu ngi ni toog ak euh, yeneen ministre de la République Abdou Karim Fofana mu ngi nii ministre Diouf Sarr mu ngi fi Alioune Sall frère du président mu ngi fi ñoom xuloowuñu xeexuñu mais militants yi ñu ngi rente waa Diouf Sarr yi ñooy xeex ak waa Amadou Baye ñaaw na lool gis ngeen ba si garde corps Amadou Baye waa Diouf Sarr yi ñu ngi di attaqué sànq ba léegi doy na waar yaa ngi sànni ay xeer vraiment mujj naa ñaaw mujj naa ñaaw. ministre ministre oh Amadou Ba na ñibbi dam ñibbi lu ngeen ah, taxaw fii dam ñibbi ah waaw na ñibbi waaw. ñu ngi xeer ñu sànni ay xeer Amadou Ba dama ñibbi dama ñibbi dama ñibbi na dem ñibbi na dem. ñu ngi tëb yang xeer ñu ngi sànni wóoratul waaw boo ko defee ministre bu ñibbee après bu ngeen neexee ngeen rayante fii nag waaw mu ngi noonu après ngeen xeex ngeen xool après lu ngeen di siy am doy donc mu ngi noonu jàng yi tas na ma ne ko jàng yi tas na tege nañ leen mais de toute façon dañoo dégg Amadou Ba li mu bëggoon wax mooy moom nekkul candidat Amadou Ba loolu la bëggoon déclaré nee na moom nekkul candidat xëy na nag nit ñee bëgg mu nekk candidat mais moom bëgguloo nekk candidat Amadou Ba loolu laa gis ba muy jël parole ba ko jur saati ne am na ñaari candidat Amadou Ba ne ko bul ma boolis candidat yi xeex nañu fi maa ngi direct maa ngi direct Kali TV mu noonu jàngee tas na waaye doy na waar yéeme na li jafa am ñaaw na président tukki ngeen nekk ci fii di xeex te ngeen waroon doon benn pour ñu war a mën a tànn kan moo ko war a wuutu ëllëg mais ñom ñu ngi rayanté li moy président bu tànnee ëlëk nit dana bari ciow waaw do rent nañ fi def nañ fi lu né pompe à gaz bi saf na fi sap waaw ñi nonu way wa Amadou Ba yi ñu ngi bëggé Amadou Ba Amadou Ba ngi né ñibi Amadou Ba ngi ñibi Amadou Ba ngi ñibi way way way Amadou Ba ngi ciopam di ñibi Amadou Ba mu ngi ñibbi